coow def ba mu baax. est-ce que xam nga ni man damaa xam ci caat sekk lu kenn xamul. ah lu mel na. caat day toj bool bool nii rek nga jox ko caat rek mu képp ko. kon doo jël bool bi moom ci saal. waxtaanal ak sama jigéen ma ni yool ni waat yër bu ma ñëwee ñu toj kaas yi ma fuural lël la jam la teeku taam nga xam ne lépp xaal yow tenke tenke tenke basé lépp ñu gis que ni tamit euh, euh, tout le temps yàgg nga ci aar bi ah, pour de la leen gis mais jëral aar jëral aar bi dama leen di wan lu ngeen musta gis ci caat caat nay bool lan danaa jaawale caat yi caat nay bool bool baa ngi nii parce que bëgg naa loo ci xunjung njung rek man naa sa waañ wa di ko tax paax li nga dégg ni day ànd di ko bool xamoo leen caat kot <laughs> waaw dama laa bëgg. bu àndee way bu neex bu àndee way bu neex dama gëj a am mais caat caat bi dañu ko nëbb de. caat bi nëbb nga ko askan wi de. man xaw naa fàtte sax tuuti. Oh. <laughs> fi ma fi ma sa waay génn la tamit xaw ma noonu dina ma génn fii. <laughs> waaw mooy li ma wax léegi rek te sa for sa waaye ñëw indi confirmation bi. àdduna mm-hmm. amul solo. Mm-hmm. te nit ki moom àdduna li fi nekk mooy si ne téye li nga moom rek. Mm-hmm. ba yàlla ñëw. dama lay bàyyi nga nekk fi nga nekkaatoon rek. fa ma nekkaatoon mooy.